fii ci université numérique Cheikh Hamidou nekkee fii ci diwaanu Géejawaay étudiants yi dañoo amal toogaanu ñaxtu ngir sàkku ci état bu senegaal ak direction des bourses ngir ñu fay leen seen bourse si nu mu gën a gaawee. déjà rek le fait que ñun tardement bi ñu am c'est-à-dire que depuis 2000 francs la ñu am suñu bac. ba tey on est en deux mille deux mille vingt quatre bientôt deux mille vingt cinq je peux dire ñu nekk ci suñu licence te terminé buñ ko loolu léegi déjà c' est anormal su loolu weesoo ma ñëw ci li nga xamante ni moo di bourse yi. octobre ba léegi euh, à chaque mois bu ñu bu ñu ñëwee ñu ne ñu mois prochain laa nag moom mooy loolu te xam naa ni que bii nii suñ ko xeexu c' est mort dootuñu dootuñu suñu bourse ngi dégg moo tax ñu taxaw fii tey pour xeex ko pour ñu jox ko suñu bourse te dinaa leen wax ne fii. à chaque fois ñu ngi si mois de ramadan duñu taay duñu daw dañoo damm dee daal li ñu def xaw sax lu may wax parce que tellement que situation fu mu toll l'heure est tellement grave depuis presque cinq mois ba léegi mënuñu jot suñu bourse te yeneen promo yëpp jot nañ seen bourse li nga xamante ni ci tegul ci dëgg tegul ci yoon décembre ba léegi jotuñu bourse le directeur des bourses génn na fii wax euh, à la presse ni fay na nañu suñu licence 3 yëpp suñu première année deuxième année troisième année alors que loolu noonu amul on a tous ñun ñuy commencé jot suñu bourse en 2021 ñu fay ñu ko deux mille vingt et un deux mille vingt deux ñu jóge fa deux mille vingt deux deux mille vingt trois octobre ñu bëgg koo arrêté. kon ana licence Tura bi ana troisième année bi léegi moo tax ñun tey ñu taxaw fii nii du ñu leen bàyyi ak xaalis boobu nga xam ñun ñoo ko moom. suñu ay morom ñu ngi nii connexion bi kenn xamul lan la 7 giga la ñuy jox motul dara doo sax connecté wu mu jeex. te ñun boobu lañ doon jël di si jënd connexion am na ñoo xamante ne ci lañ doon paas am na ñoo xamante ne ci lañ doon jël di si faj seen ay soxla am na ñu nga xamante ne ci lañ doon jël. di ñu jox seen ay waajur am na ñoo xamante ne ci lañ doon fay seen ay formation jox nañu machine yu nga xamante ne diréewuñ sax un an machine yi yàqu ñun dañuy obligé di dem feneen di ko abbi loolu tax bourse si nii dafa fekk ñoo xam ñun ñoo ko moom ñun ñaanuñu ko de dañ koy jël suñu alal la ñun ñu dara wu wuñu dara ñoo ko moom yi la étudiant di xam le ne fekk fa yu leen seeni i bourse comme nu mu waree ñoom dañuy wëyal di continuer seeni i grève ñun du laal cent quinze cent trente cinq mille ñuy laal te instant bi le combat on va le porter jusqu'au bout incha allah sama gars yee bii nii laa wax heure bu ñu xëyee incha allahu rabbi dinañ ñëw toog dinañ ñëw toog examen du am ñii di jël machine du am voilà c'est en quelque sorte analyser le système fi la toog nañu fay suñu bourse parce que wax dëgg yàlla am na ñoo xamante ni fii seen i dañoo yaakaar si ñoom te si bourse boobu dañ leen di satisfaire nañ dawal yërmande am na ñoo xamante ñi ngi def parce que lii système bi ñi seen jàng dafa yéex ku ci ni man maa ngi def formation ñu ci bari si ñun dañuy def formation te fi lañ yaakaar pour fay seen bourse nañ dawal yërmande te nga xam ne ñun ñun ñooy ëllëgu que bon la liste est là ils l'ont

on va descendre partout dans les rues du Sénégal pour pouvoir réclamer nos bourses. Et aussi, je tiens à dire au prochain président de la République qui sera ici, je ne sais pas si ça, ça serait Bassir pas, il n'a qu'à rayer de la surface toutes ces personnes qui sont là dans les directions pour leur propre gain. Il n'a qu'à les rayer. Il faut mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ce que nous réclamons aussi. bu ñu fay di si seen droit bu boobaa du nekk ñun kese université nañ woo waa UGB woo waa fële na le waa ICAT ndax ICAT ku ne xam na ne lii doyu leen galax dañ koy régler ci saa mu jeex tax gannaaw bañ leen amalee ay bourse lu toll ci juróom ñi weer yile étudiant yuy jàngee ci université numérique Cheikh Hamidou Kane nekkee fii ci Guédiawaye ak ci yeneeni région ñi ngi amal ay grève ngir sàkku ci direction des bourses ak état bu Sénégal ñu fay leen seeni bourse